ne soxna Marème fay ne Cheikh Moustapha mi ngi lay nuyu ne yaag soxna Aminta Tall ak ñi nga àndal ñëpp bàyyi ko Ndakaaru ne mi ngi feggoog nag njabootug boppam sëñ Cheikh Baara Lahat sëriñ Sidi Mbakke Abdoul Aziz Serigne Modou Aïcha Serigne Modou Aïcha doomu Serigne bi. Serigne Abdou Samad. Serigne Saliou. Serigne Saliou. Serigne Khadim. ak ñi nga xam ne sët Serigne bi lañu. Serigne Cheikh Ndiaye ak Serigne Djili. Jën Djili doomu Cheikh Abdoul Fatah. Serigne Abdou Latif. ak Serigne Ahmad May. Serigne Moustapha Dioum. ne ku ne xam na ko ci liggéeyu sëriñ bi. ak soxna Ayda Gaye mi nga xam ne sa jëmm tax mu ñëw fii. ne mag euh, Sall mi ngi lay siyaare bu baax. te di la sant. te di la sant. di gërëm itam. te di la gërëm itam. di la ñaanal. di la ñaanal. ne li El Hadj Ablaye Mbaye wax léegi. ne ku ne xam na ni sëriñ bi. ne da nga jàppe woon muy sa waajur. jàpp ko muy sa sëriñ. jàpp ko muy sa sëriñ. nga bëggoon ko lool. nee nga bëggoon ko lool. fonk ko fonk ko. jëf ci moom. nee daa jëf ci moom. ba màggal gi weesu. ba màggal gi weesu. bi nga ko yónnee. nee camion bi nga ko yónnee. ci man la jaar ci moom la jaar. nga xam ne lu nekk ma nga ca woon. sa lépp la. nee kon sa lépp la. mën nga koo jaar sa bopp. nga koo jaar sa bopp. bi président Macky nee bi président Macky Sall ñëwee itam. daanaka ñëwaale woon na daanaka ñëwaale woon na la. waaye fokk nga nga ñëwal sa bopp. ndax sa bëgg ak sa woyof ak ni nga jàppe kilifay diini kon sëriñ Moussa mi ngi lay nangul njaal bi te di ñaan yàlla yeex la koo fay di yóbbante waalit ay cant di yóbbante waalit ay cant président Macky Sall président Macky Sall ca président Macky Sall nee nu mu waroon a jàppe sëriñ bi jàppe na ko sëriñ bi fu mu ko waroon a fekk teg teg na ko fa nu mu ko waroon a gëmee gëmee na ko ni. lu mu waroon a def ci moom def na ko ci moom. te loolu nag bu amee. ne yàlla ak yow a. ne ku ne xam na ni. boo amee soxna su baax. lépp looy def ci lu baax. dañuy xam ni xelam génnu ci. loxoom génnu ci. ne bi yàlla dogalee muy président. moom président Macky Sall. ngeen ànd ñëw fii. ngeen ànd ñëw fii. seet si sëriñ bi. lam leen jëkk a wax. lam leen jëkk a wax. dañu président mel ni yéen ci yéen la jëkke. dañu président bi mel ne yéen ci yéen la jëkke. ku gëm yàlla. gëm yàlla. dib taalibe. soxnaam nekk jullit. soxnaam nekk jullit. ne ci yéen la ko yàlla jëkke. te loolu yaa ngi koy doxal. te yaa ngi koy doxal. di ko sàmm. di ko sàmm. kon nag. ne kon nag. wëllëre gi nga xam ni. wëllëre gi ni. moo doxoon seen digganteeg sëriñ bi. Cheikh Moussa mi ngi koy feddali. ndax ndax tay ji do sëñ mustapha rek. du Cheikh Sidi Makhtar rek. moy khalifa ak njabootu bara ne kon nak mi ngi fedd li ni. wëllëre. njabootu sëñ bara ak yéen. diko fedd li njabootu sëñ bara ak président Macky Sall. lam ko wax bi mu ñëwee keroog. ni ko. nu fa du dox këllëre gi. fas yéene dox këllëre gi. fas yéene dox wëllëre wi. ci jëf. a ñaan ak ak jàppale. keroog bi ngeen ñëwee fii ci màggal gi. wax naa leen waxoon naa leen ni leen. nee waxoon na ni leen. Serigne Moustapha. Serigne Moustapha. ak njaboot gi ak njaboot gi. ñi ngi àndaat. ñi ngi àndaat. di fasaat kóllëre wu bees. di fasaat wala réewu bees. ba président ni jàppal nañ ko. ni jàppal nañ ko ko. ñuy sàkku ci yow. kon soxna ñuy sàkku ci yow. ñun njabootu Cheikh ñun njabootu Cheikh Mamadou Lamine baara kër gu mag la kër gu mag la. te sënaati sëñ Touba yi. te sënaati sëñ yi. moo ci njëkk a wutu doomi sëñ Touba. muy lu diis. nee lu diis gann la woyofut ñuy sàkku ci yéen ngeen jàppaleel nu ko jàppaleel nu ko ba waajuram la mu tàmbali woon ci njabootu Cheikh Modou Lamine Baara lépp mën a wéy la mu yéene woon ci Mbàkke Kajoor it <coughs> lépp mën a yegg ndax Mbàkke Kajoor fa la yoonu murit juddoo kon tey mi ngi ci loxoom soo ko soxna si ñu ngi la koy dénk. di la ñaan itam <coughs> nga jàppal ñu ko. ndax gis nañ sa sa bëgg-bëgg. ndax gis nañ sa bëgg-bëgg. ci diine ci diine. gis nañ sa bëgg lu baax. gis nañ sa bëgg lu baax. kon ñu ngi la koy dénk. di ñaanal président Macky Sall itam. lañ ko ñaanaloon rek. ndimbalul yàlla. boo xasee am ndimbal. loo song daanal ko. lu la song daanu. sa digganteeg moom itam. nga taxaw ci wetam. di ko jàppale ci liggéey bi. jàppal ko ku mu am ñu ngi ñaan yàlla seytaane bu mu dox seen diggante mukk mu gën a dëgër sàmm la sàmm leen yéen ñaan ñëpp sàmm njaboot gi ci barke Cheikhul Khadim ci barke Seydina Muhammad jërëjëf ñu ngi lay dénkaat ñu ngi la koy dénk nee na dénk nañ ko waaye moom itam mi ngi lay dénk président di la dénk boppam ak njabootam di la dénk Aminata taal sëriñ bi itam. nee sëriñ bi itam. li nga wax ci ndénkaan li. li ma wax ci ndénkaan li. kilifa kenn du ko neel. kilifa kenn du ko neel. moo ne lu ma war a def ci moom. moo lu ma war a def ci moom. def naa ko ci moom. fu ma ko war a jaarale. fu ma ko war a jaarale. naa ko fa. te ñun dootuñu xale. te ñun dootuñu xale. sunum nawle la. te sunum nawle la. duñ ko jëy mukk. duñ ko jëy mukk. ndax sëñ Tuubaa defar nañu. ndax sëñ Tuubaa defar nañu. dañ cee bokk. waaye lu nekkoon ci sëriñ bi. mi ngi ci moom ne jàpp googu rek. jàppoo gi rek damay indi seede bu ndaw. ne aminte mu ni day indi seede bu ndaw. ne jàppoo gi rek. ne jàppoo gi rek. la ñu bëgg. mu gën a dëgër. ne soxna aminte tey. ku ne xam na. ku ne na. sa digg ak sëriñ bi sa digg ak bi. doom nga. doom nga. ju ko gëm ju ko gëm. ko jàpp ju ko jàpp. ju ko jàppale. ñun gis nañ ko daan ne gis nañ addi yi ñu ko daan indil. kenn ku bokk foofu. kenn ku bokk foofu. ku sa mën a ëpp addi sëñ bi amul. kon nag ñu ngi yeesalaat wëllëre bi waaw ngeen xam ne daal sëriñ bi yóbbaale seen ngërëm waaw aminte mu ni mu seef baatu seede rek ne di la ko seedeel mbakke yéen ni toog fii digganteem ak marim mi ne borom këram muy président Macky Sall ne rakk ma ne noonu la ko jàppe yàgg yàgg na fu mu ma teg. am na fu mu ko teg. fonk na fonk na ko. considéré na ko considéré na ko. jox na ma respect jox na ko respect ak cër. ne àddina bépp xam na ko. ne moom it mu jàppe ko noonu. ne waaye nag Marème mii. daf koo jàpp comme ndeyam. ne président boo waxee. mu ne yaay yaayi Marème. Mariam it bu ñëwee. noonu la ma jàppee noonu la ma jàppee. teraanga bu nekk nee teraanga bu nekk. daf ko koy defal cër bu ne. cër bu ne daf ko koy jox. dañu ñëw. dañu ñëw. bi ma wooyee démb wax. nee bi mu ko wooyee dem wax ko ko. dama ndax disponible nga. ni ko ndax disponible nga. mën ko bien sûr. mënu ko bien sûr. waaye bi ñuy ñëw. waaye bi ñëw. foogoon naa ne sax cortège bi. foogoon na ne cortège bi. am na ñeneen ñu ci ne. am na ñeneen ñu ci ne. mais dañoo wàcc. waaye dañoo wàcc. ma taxaw ma taxaw. ne ko ana ñi nga àndal. ne ko ana ñi nga àndal. munuma indiwuma kenn. yow laa àndal. ne loolu nag cër bu rëy rëy la kon mi ko ci sant ci sa kanam di la ko seedeel fi nga ko teg di la ko gën a dénkaat di la gën a dénkaat président yàlla may leen wér te boole nu ko may ko teraanga gu sax ndax lépp la bokk nit ñi ne moom it mu ci feddaliwaat wala réem sa digganteem ak yéen ne amuñu woon waajur wu ëpp ku fi jóge waaw kon kon nag amit ne mi ngi feddali wëllëre bi ma amoon ak sëñ bi ak yéen. ak njureel gëm ko juróon. mi ngi feddali loolu lépp. ci yéen ñi di leen dénkaat it boppam. di leen dénk nag Marème fay bu baax. ak président bu baax a baax. di leen ngeen di leen ñaanal. ñu di leen ñaanal. jërëjëf Mbacke nga ñaanal ko. ne li nga wax ca digganteeg moom nee da ko daa waxtaane ne kon dal nam xel ne li li Cheikh wax ne jàppal na leen ko nangul na la ko waaw yéen ñàkku leen moom moo ñàkk ndax moom mi ngi fi moo Cheikh max Makhtar ci yéen kon ñàkku leen kon kon